ca la comme ni ma leen ko waxee woon nag Elvision du bàyyi benn yoon bi ñu jógee ci yaay ji nag dañu daal di dékk suñu micro doom ci rek Ndeye Fatou nuyu naa la. fay naa la chérie. waaw ñu gis ne kii ma toog ak doomu Fatou Lawbe la macha allah mu nekkoon kii. Euh, scène musicale bi daan fecc di def lu neex tey Fatou ñu gëj laa gis ci scène bi Ndeye Fatou ci lan nga nekk. waaw ah, maa ngi ci ba tey de <laughs> maa ngi ci ba tey di door waar rek. waaw dañ laa gëj a gis ci scène musicale bi foo nekk léegi xanaa da bokk ci ancien gloire yi wala nu mu demee noonu. Goura ah 1992 Goura. léegi dangaa mun a tudd ni nga doon def voilà <laughs> léegi damaa gis ne instant bi moom feeñatoo lan moo waral loolu. waaw tey la waalo gën a aay man nag moom presque sama génn bëriwul parce que man bu maire bi di génn rek lañ may gis mais bu génn maa ngi ci sama coin comme ñooy raarandoo ñooy génnandoo ñooy defandoo buzz. waaw pourquoi pas doo dem seeti yeneen euh, feccikat yi di fecci di àndandoo ak ñoom parce que li ñuy def tamit dàq ñu la ko. waaw mais man fu ma woo pour fay ma cachet sama liggéey ma dem def ko mais duma dem di wax artiste bi jël ma pour ma fecc la pour nga defal ma promotion parce que promotion moom am naa ko. waaw dañ lay daal di bàyyi rek nga tàggatoo sa fans yi nga xamante ne yàkkamte ni laa gisaat ci chain musicale bi ngay fecc ndax macha allah danga nga di doomu lawbe nag te man li ngay def lool. waaw chaîne musicale ba tey maa ngi si dew ma fenn maa ngi ci biir ba tey tey la waalo gën a ay dama raar te noonu da ciy baax des fois ci fecc kana ah. voilà mais maa ngi bisu sama fans yëpp di leen kuku di leen namm di leen ziar bu baax a baax a baax di ne maa ngi ci biir ba tey. macha allah yéen a ko déggandoo nee na mu ngi ci biir bu baax a baax <laughs> nee na dina leen <laughs> fekk si waat ci biir ah kon noonu la.